kon euh, mbokk téléspectateurs yi nag ñu am euh, mbégte ànd ak waa kër Aram jàppale ci rubrique bi nga xam ne moo di rubrique lu xew gis ngeen bagage yi fa tabaarakàlla macha allah la fa mën a wax daal mooy ñàkk leen fréquenté erreur la fa tabaarakàlla macha allah alaaji nag ñu nekk ci thème boo xam ne ci kàttanu yàlla euh, tey la ñu koy terminé ndax nag xam nga ni jamono ju nekk ak la cay xew. Euh, suba ak ginnaaw suba ak fàttali rek la télévision Futur Média dina nekk fale euh, ànd ak suñu mbokk laayeen yi def direct alaaji ñu nekkoon ci mbiru veuvage veuvage soo ko déggee nag ñu ngi doon waxtaane mbiru jatun yi ah di waxtaan dundu jatun yi fa tabarakallah macha allah di fàttali rek télé 88 628 09 09 mooy numéro yi ngeen xam ne mun ngeen ñu ci jot 88 628 09 09 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 869 83 92 00 221 33 869 83 92 loolu mooy numéro yi ngeen xam ne mën ngeen ñu ci jotee ci réew mi ci 88 bi bitim réew international bi mooy numéro numéro bi ci suuf Alaaji kon euh, dama lay jox nga ak fàttali su ko defee paket nga xam ne naroon naa la ko jox euh, wala boog waroon naa la ko jox suba ak gannaaw suba ma jox la ko tey. waaw fàttali gay mooy rek euh, comme yàlla dogal na noo ngi woon ci ngi doon def te xamuñu. Mhm. te mu leen di lor. Mhm. bidaa yi. muy bidaa. dëgg la. ñi xam te jàng. dëgg la. bi ñu waxee li war a am. noppal nañ leen. ndax lu bari lépp coono la woon ci ñoom. dëgg te amul lu ñu doon njariñ. dëgg te ñaari naqar mënut a ànd. ñaari mettit mënut a toogaay rek coono la. dëgg la laaj. jël sa xel mépp yóbbu ko sunu boroom. dëgg am na luy tax. dëgg waaye ni nga toogee nag su la bëggee lor yaratu ko. dëgg boo ko bëggee def bi daa nag ñeenti weer fukki fan yaa ngi lor koo ko la kon la mm. ndokk bi ñu fi wooyee ña xam. Mm-hmm. te li ñuy wax lépp dëppoog lislaam dëgg la bidaa nag wax dëgg yàlla euh, amul solo. dëgg lépp lu waay di def te bëgg koo def su jaamu yàlla nañ ci dugal li dagan. ak li lay jëriñ ëllëg. dëgg kon fàttali la. jëtun du fi jóg. muy góor ak bu jigéen. dëgg la dëgg la waaye jigéen ci raw. dëgg naaw jigéen day toog te góor du toog. te méttiir yëpp ñu teg ko jigéen teg ci. dëgg la su wëlbati ko waatee bëgg cee boole ak yeneen dina métti. Hmm, day métti. waxuma toggaay gi hmm. waxuma fitna gi. dëgg la waxuma xeex bi ci biir. dëgg la waxuma loraange gi. waaye sot gi ñu lay sot. te teguñu ko ci yoon. muy ay métti yoo xam ni boo ko bëggee def ñeenti weer. say say mbokku la ko sot say mbokku jëkkër di la ko sot. dina métti métti goo xam ne gi ku la noppal ci la si des nag. dëgg la na laa indi li si des nag nga am ci partenaire. dëgg la laaj. kon foofu la fàttali gi nekk. dëgg ko daan def daal te daan ko def biddaa. nañu xam ni amul solo. dëgg la ñuy fitnaal it leen wóor ni tib la bu xay du rees. dëgg la kon lu mu gën a tuut nag ëpp na. jarut a réyal jarut a réyal. dëgg la ki waa sa càmmañ dem bar sàq nga bëgg a fitnaal soxnaam. ndax nekkatu fi defante. defanteeg moom. ndax kuy defante defante defante ba ne jib dëj. te ngay defante lan nga mën ah, ah, di ci la de. ak njabootam. Hmm. yàlla ba mu doon ak njaboot gu ndaw te amul fu mu wéeru. wallaay wallaay yooyu moo fi xew. wallaay wallaay ndeysaan te li koy indi toujours ñaare mooy. jëw nga ka dem. ndeysaan waaye bàyyi xel ni di ko mës a fekki. ndeysaan ndax loolee la ba cib dëj yàlla na rafet. su ëllëg des na la ko fay cib dëj. dëgg la dëgg la alaaji macha allah alaaji gis nga paquet yi bëri na xanaa rek euh, ginnaaw jamono ju nekk ak la cay xew dañu koy tënk waaye waaw mënuñu wax dundug jatu nii te waxuñu alaaji mbokk yi nga xamante ni ñu ngi lekk alalu jirim yi ndax léeg-léeg nga gis kenn ndax alaaji dee moom euh, day bette waxin la déggin la laaj ndax bés bu nekk nit a ngiy defaru ndax xam nañu ala kulli xaal dañuy dem waaye li ñuy naan tamit ku dem yóbbaale mbébét mbébét nag lu ci ëpp nag ci sa njaboot la fa tabaarakàlla macha allah alaaji dafa ci am ñenn ñoo xamante ne ne ba ñuy dund wóolu woon nañu jarbaat wóolu woon nañu frère wóolu woon nañu kenn koo xam ne su leen suñu mënoon yeewaat ñu ne leen kii mooy war sa njaboot duñu ko gëm ñooñu nag ji jatun bi moom ci jëm boppam dina toog yéemu ci yàlla ci lu ëpp naan sama nijaay su xamoon ni frère bi nii lay def su fekkente ne làqu na kenn du ko kenn du du kenn du ko mën a imaginer ndax alaaji ñàkk yërmande mënta weesu yow mi nga xam ne yow yaa doon benn bakkan ki nga xam ne moom moo làqu yow mi nga xamante ne yow yaay mag wala rakk ci ki nga xam ne moom moo làqu yow mi nga xam ne yow yaay jarbaat ci ki nga xam ne moom mooy làqu mu wóolu la ci alalam wóolu la ci la ma amul la mu ñàkk nga xamal ko lépp mu xëy suba làqu alaaji nga war ko wër bi nag mooy toog ci alal bi ne ca boof xëy suba lu mu la dénkoon nga ne daf ma ko jaay xëy suba la nga xamante ne ne njaboot gi yaakaaroon nañu ko alaaji nga ne ah def leen kat nag du fii ndax kat fii moom dara dara seq ma woon ak moom dara alal ji maa ko moom ndax binduwu koon fenn nga gis ñenn ñoo xam ne fane fanweeri at wala boog ñeent fukki at xaritoo nañu ko ak kenn wóolu ko ci seen lépp àllaaju ñu xëy suba làqu ñu wor leen wor leen ci seen njaboot wor leen ci seen soxna wor leen ci fenn kon xeetu wor yooyu nga xamante ne àllaaji mu nga ci euh, jatu ñu di ko dund loolu tamit bëggoon naa ñu waxtaan ci ndax lu yaatu la ak lu siiw la àllaaji waaw xam nga diggante xam nga olof day adressé waaye xamul ki moom cër bi dëgg la wor jëtun wor alali kedem du wor wor sa bopp la dëgg ndax dama laa toujours di leen ni la lu dul rees hmm. jëtu duggooy waañ sax bay taal dëgg ki nga wóolu hmm. bi ngay dund hmm. moo xam muy rakk mbaa muy njijaay mbaa mag ak nu mën a mel ci àddina la nga amoon ci moom yaakaar yow mi dëdd bu tasee yaakaar ja mm. yaakaaram tas waaye yow tasul sa yaakaar dëgg la laaj déen ku def sa wareef wàcc dëgg ti ki muuru nag toog mm. am yaakaar ni diw am na nu mu demoon ak sama njiyaay dëgg la ci bi muy dund dëgg la fii ma toog ragal naa ne bis ma fi jóge njaboot gi dañu am jàmm wallaay wallaay laaj di ko dunde dëgg la yàlla mi dëratul liggéeyam jeex dëgg la nga ne ko musuma si moom len te ma xamoon lépp li ci biir wallaay wallaay kooku bu dee jullit mën na ko baag moom. dëgg la te xam ni li ma la moo am. dëgg la laaj. dafa am yoo xam ne li ko indi lépp mooy. Mm. nañ di bàyyi nëbbutu. dëgg la laaj. nëbbutu indi yu bari. dëgg la la nëbbutu soxna yi. mooy indi yu bari. dëgg la laaj. boo bañee su soxna xamal la. dëgg la kala xamal da lay nax. dëgg la kalaxamal xamal yéene wu la jàmm. wallaay laaj waxati ko waaye defoo sa wareef. wallaay laaj waxati ko. xarit soxna la war a yem. dëgg la ginnaaw waajur. dëgg la. koo amul njaboot ak koo amul njaboot ci yem. dëgg la. ki nga bokkal addina bokk moom àllaaxira. dëgg la wëlbatiwaat mu di la guddeel ak bëccëg. dëgg la laaj. yéen képp ak sama borom. la la ma xamal sa ndey du la ko xamal sa baay du la ko. xamal wallaay wallaay ndeysaan amal mat gu ni mm. mu ne su la wax lépp. ndax ku wax lépp feeñ. dëgg la waaye am na loo xëy ne bokk ni bi doo gor. dëgg la muy ni nag yu bari yii. dëgg la miraas sa bopp te faatuwoo. dëgg am na lu koy indi. dëgg la mooy nëbbatu ko ëpp di saani saalal. dëgg la laaj ki ngay nëbbu nag. te du la nëbbu dëgg la bés boo feeñee am gàcce. dëgg la alaaji dëgg la alaaji ndax euh, xam nga problème yi alaaji da ngay dafa bëri léeg-léeg nga gis soxna soo xamante ne ne que jotun la ma nga toog waaye ka nga xamante ne ne wóor na ko ne moo yor lépp borom këram ca bésu dëj ba lay commencé di ko ñàngal ak di ko chercher tapas ñàngal bi ak seen si tapas bi nag alaaji jubluwuñ ci lenn lu dul dénkuma lenn xamal ma la lenn waa dangaa juuma ah, daanul wax ak yow da nga juum waaye alaaji fit googu nga xamante ne muy mag wala rak wala boo xaritu benn bakken ñu nga am fitu di ko lekk alalu jirim di am fitu di ko lekk alalu jatun allaaji loolu tamit dafa nekk lu lu fréquent ci dëkk bi loo xamante ne ne ko doon na baax ñu waxtaan ci su ko defee ñu koy def wàññeeku ndax alaaji yow ki nga xamante ne moom nga jël saax-saaxee ko lem ko daal di ko dugal ci pax ala kulli xaal di ko fekki kon ginnaaw nag fekk bi yow mii xamuloo sax kooku dina la rawee fan kon jar na rafetal waaye alaaji nii nga xam ne moom la ñuy lekkee alalu jirim yi ci réew mi metti na metti goo xamante te jattu ñi tamit ñu ngi dund loo xam ne léeg-léeg ñu ngi gis ci alaaji kenn koo xamante ne dafay muuru waaye diggante keroog ba muy muuru ak ba nga xamante ne ci lay mureeku léppam jëkkëram dootu di kenn dootul xam fu mu jaar ndax ña ma wóolu woon ñoo ñoo ko war man gis naa kenn koo xam ne alaaji <coughs> nañ ma jéggal way juróom yi dañu gaañ mu jël magam boo xamante ne moom la bokk ndey ay <coughs> def ko yaay def ko lépp waaye kooku ba nga xamante ne alaaji càmmiñam ba génn na àddina ca la toog ca alal ca toog ca complètement yërëmul jirimi yërëmul jatun yi ba pare cherché ko tappaas jatun bi ba nga xamante ne ne ko pare na dafa génn di luwe génn di luwe parce que sœur ba nee na ko daal fii amu leen fii dara dara dara dara dara ci koo xam ne danga bokk ndey ak baay moo tax nag mën na la alaaji kenn mënul nëbbatu lépp ndax su tubay di lekk la moo ëmb fu ñu jëm tubay kat jegante nag la mu ëmb moo tax ba ngay dund il faut mu am ñenn ñoo xamante ne ñooñu ngay waxal waaye ñooñu yàlla nañu mët cër ba àllaaji waaw xam nga li amoon démb déggan dañ koo bàyyi moo tax lu bari din daal mm. ñetti conseiller daan am ñett da wax waaw bàyyi bi la jur boo ma jaaxle da ngeen di tëju yéen ñaar te ndey du ko fekkee dëgg la démb nag laa wax dëgg la ndey ji nga jur mm. daan ngeen yow te sa du ko fekkee dëgg la waaye soxna si nga uuf nag ñëpp ne tëdd ngeen bokkatu yéen ñaar ak yàlla képp ngeen bokk waxtaan tëj ko. secret. mu ñetti conseil yi moo amatul. dëgg la ci doom day nëbb bàyyi. dëgg la. doom du ndey du ko xamal. dëgg la. jëkkër di nëbbu jabar. dëgg la. fu ñu jëm fu ñu jëm ci sànku rek fu ñu jëm ak liggéey yàq ak liggéey sànni ngelaw jël dëgg la moo daan am bu jëkk dëgg la bàyyi loo ko mas a dénk li ci ëpp mbind la ko daan def dëgg la daan la conseillé it ndax ki nga xëy ne laa war a remplacer ëllëg du la yàqal. dëgg la laaj. su bëggee la nga bëgg xarit amatul nag. Mm. dañuy jaawale àndandoo ak takkandeer ak xarit. ah kon te gën ko. dëgg la ndax jëmmam lay àndal. àndandoo takkandeer ak xarit. waaw dañ ko wax dañ koo jaawale te ak bokkul takk takkandeer laa ci gën a sopp sax. waaw takkandeer da ànd ak boroom. dëgg la bu boroom taxawee mu taxaw bu tëddee mu dem. dëgg la laaj. xarit amatul. loolu moom ay lépp la. ay lépp la léegi ay lépp la léegi amatul ay lépp la. xarit da la yéene jàmm dëgg la laaj yàlla te nga bañ koo dénk. wallaay wallaay. waaye boo tukki mu jaboot kër gi. wallaay wallaay boo génnee addina mu yor kër gi. aajowul nga koy dénk. aajowul nga di ko dénk déedéet déedéet wallaay. dëgg sax boo ko dénkee mu bañ. dëgg la. ndax bëggal na jàmm te lu ma bokk bokk yow. dëgg la dëgg la. àndandoo fi bari ak reetaan. dëgg la. deret daa foor waaye am na fu mu jógee. dëgg la bañ da koo kal waaye am na lu mu lal. dëgg la ñu baree bare nga ànd yow te la jàmm. dëgg la alaaji. loolu fi bari nag nga ne sama xarit. dëgg la dëgg la. ki yàlla wëccul nag. te am ànd aleeru ëllëg. Mm. fu mu jaar bari a dëgg la. bu ko defee xarit musib dina ko dal. dëgg la. soxna nag ci boppam. siletment la ci yaram. dëgg la. mbubb moo sol da koy fekki. wallaay wallaay ndeysaan. waaye ñaari xol bu ñu àndee bu si ndëbbante amee àddina tukki. dëgg la te moo bareeti léegi. ndëbbante bi moo indi lii. soxna dootu xamal jëkkër. dëgg la jëkkër dootu xamal soxna. moo tax jattu nii soxna erreur am fa. dëgg la muy loolu. dëgg la laaj. te bari na ñaari jëtun. Mm. bu toog. Mm. ka dem buñ ko dee limaane la mu am mm. mbaam mu tey bokk ki bokkam mm. ka toog ko xàll ba yoon wi am dëgg la waaye bari na góor ñu sànk woon seen jabar leen dëpp dëgg la ba bokk doon génn dëgg la laaj ñu ne mës a sopp nag te yéene wuñ la jàmm mm. tey seeg seen càmmañ bu seen càmmañ dëddoo dañuy def doon àll dëgg la xeex ki dem bar sàq nag yomb na ci sayir waaye dis na ci baati dëgg la alaaji macha allah macha allah li ma la wax rek comme lu ñu waroon taawi la dañu koy tënk rek ndax lii lii rek lii lii rek paquet bi rek alaaji tem la ndax daal li ci nekk bëri na te yéeme na mais laaj damay jàll ci beneen thème rek beneen beneen paquet sax beneen paket ndax li ci gën a yéeme àllaaji mooy góor ñi léeg-léeg lu ci bëri suñ ko xamoon dinañ defarwaat ci seen dund laaj mu mooy lan mhm. tey ma wax la paquet bu garaaw de mooy xaritoo góor yi da nga ci benn xarit boo xamante ne ma ngay fréquenté sa kër suba ak ngoon fekk na yàkkamti na nga guddee àll ba mu ne fuuf sa jabar xam nga keroog imam Pape Samba bi mu toogee fii. nee na bëri na ci ñoon ñoo xam ne su ñu ñëwee nii la ñuy def nee na nan dañuy def nii. pour wan ne wekk naa sama mbubb nee na am na ci ñeneen ñoo xam ne suñu ñëwee dañuy xaw a faxas seen dàll nii. soo leen soo leen nee jàkk ñu xaw a faxas seen dàll nii pour wan la ne su mayku naa fi mu am ñeneen ñoo xamante ne ba ñuy ànd ak sa nijaay mu suñu yëkkati paquetu suukar waxuma la goros de paquetu suukar baaxee ko ko. waaye keroog ba nga xamante ne sa nijaay commencé nañu làqu alaaji chaque mois ñu indi ration boo xam ne koñ ba yëpp mën nañ ci lekk soo waxee ñu ne dama la yërëm ak njaboot gi il faut ma taxaw donc yi dafa ci am ay jeu yoo xamante ne nee naa la ka nga xamante ne moom ma ngay dem su ko xamoon ne kooku ba muy xarito ndax góor ñi dafa am ay xarit yoo xam ne foog ñu ràññee leen ndax am na ci ñenn ñoo xamante ne xaritoo wuñu ak yow lu dul pour di ñëw ca kër ga di xool sa jabar ak tamit euh, am am am cofeel goo xamante ne ci sa soxna jéggi na dayo allaaji nag kooku amul benn objectif lu dul yàkkamti nga dem cinquième continent kon ñooñu alaaji su fekkente ne nekk guddee nga àll nee naa la sëkk ya nga xamante ne nekk ma nga la fay def sax yàkkamti la faxasu génn ñëw nag placé placé goo xamante ne ma ngay xalaat di réfléchir naka lay doon ne kër doon na jabar doon na ay doom alaaji ne faax ci lal ba nga doon tëdd du ñu am sax sago changé lal ba alaaji dëpp say photo wàccee ko ñëw ca kër ga di jaagar jaagari kon jatu ni tamit ñooñ tamit nañu ràññee waaye yéen ñi góor ñi alaaji tamit na ngeen def attention. waaw xam nga sax dëgg dëgg dafa am yoo xam ni dama ni dama laa li ma loon yett xam. Mm. di nga xaritoog dama doon ku xam kuy doon sa jabar ëllëg. Mm. te bàyyi njaboot boo xëyee laajum dépense ndax kër gi woom te du dëñee. Mm. may la ku xamoon ki lay sang boo jógee bar sàq. di ko defam xarit waaye ko xaman ki lay gasal bàmmeel doo ko sori. Mhm. dafa am ñoo xam ni dama ni. Mm. dafa am ak i góoram. Mm. dañoo feebal. Mm-hmm. waaye loo mën a yor mm. man. ak ku ma doon ba amee ful yàllante ngay fanaan ci jamaa. am ngi limite sama kër. ah wax ci. am na góor yoo xam ne ñëpp nag. seen xarit amuñu limite ah, yow mi xam ne sax na yow xamoo boo buñ la limite wulit waaw. yow war ngaa mën a xam sa bopp. ah fekk dafay fekk damay faral di wax ni la. ah mu moo dul sol bul ko solal as sam nawle loo xare xaritoog nit. Mm. kër gi étape la. Mm. am na foo war a yem. Mm. baraas la war na fa wut bët. <laughs> am na nag ñooy maye ba maye lu ëpp te la maye xamuñu ko te bis buñ ko joxee dootuñu ko mën a nangu ndax c'est trop tard day weesu. jigéen ñi si yëm jëm nit. nañu am ful lañu day ni